asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, dañoo bëggoon a sànni ay kàddu yu gàtt rek jëmee ko ci euh, kii Macky Sall tànn euh, pour imposer ko le peuple sénégalais d'abord moom ci boppam wërta mën doon président de la république du parce que nationalité guinéenne la yor je suis un pan moom laa ku gëm unité africaine la waaye mbir day jot ñu door koo tàmbali kii c'est un Guinéen c'est un pion de la France c'est un pion de la France ce n'est pas normal ce n'est pas normal Sénégal ànd bëgg Ousmane Sonko Macky Sall din imposer un Guinéen pour mu doon suñ président lu nag amuñu jom amuñu jom ndax lu yàgg am ci réew mi la lu yàgg am ci réew mi Karim Wade ngi nii du sénégalais amul benn juge bu nekk Sénégal bu mën a tàllal sa loxo waat ci yàlla ne kayiti Karim Wade ci mën la ko déposé maa ko jugé jox ko nationalité amul amul amul ba it c'est un Guinéen il s'est profité du Sénégal pour arriver ci échelon bii mu toll waaye nag nun suñu sëriñ si xaalis lañ gëm toppatoo leneen de et c'est très scandaleux waaw xaalis rek koppar rek ndik seen bopp askan wi nekkul ci noonu ndax Amadou Ba mi Amadou Ba tey bu nangoo ñoom ñu tëj Ousmane Sonko ci kaso bi kaso bi ñoom sëriñ si ñu toog jàkkaarloog Amadou Ba mu wóor leen ne Amadou Ba mi yëpp sàcc la coowal am coo xola coowal Amadou Omar Omar Diallo yëpp boobu ñoom ñaar ñoo ko séq ñoom ñaar ñoo ko séq tey yéen yéen nangoo toog en tant que des sénégalais nangu usmaan Sonko mii ñu di ko tëj ci kaso bi ngeen ànd ak Guinée bii di ko imposer le peuple sénégalais damay ku doonu sénégalais bu leen xottil sa passeport sànni wala say kayit dem leen mari toog fa parce que amuñu jom sëriñ sii sëriñ sii xaalis leen yëkkati ak seen bopp ak ragal tubaab bi amul kenn ci ñoom ku ci ñeme tubaab mut ndax tubaab fi mu jaar ak seeni maam tax xaalis leen gën a lépp lu mën a am te Ousmane Sonko deful leen dara ñoom ñoo ko wor Amadou Ba mi sax day ko ñàkk jom waaye durant ak ndawam moo Ousmane Sonko ñoo mas a bokk école bokk classe bokk lépp ba bokk fu ñu liggéeyandoo ba jabari Ousmane Sonko ban koy ñaani amour ba dem na ci mais un franc maçon boo xam ne heure bu la neexee man ngaa wor Ousmane méritéwul kasu bi yéen sëriñ si li ngay def c'est scandale àdduna bépp nga koy wax da ngeen na rus loolu islam billahi islam dafa rus jamono yi jullit yi dañoo ruus dañoo rus si vous acceptez ce Guinéen mu nekk président du Sénégal Guinée bii nekk président du Sénégal Ousmane Sonko ni ci kaso bi ni ci kaso bi yéen peuple sénégalais yéen laay waxal Ousmane dina ndax pare ngeen ngeen noppi ngeen noppi ngeen ngeen noppi ngeen ba ngeen noppi lu war ko Ousmane noppi wuñu bu ko defee mu teggi tànkam mais Ousmane daf noo dépassé daf noo dépassé nu nag nu bokk ñàkk jom te xamul nu ñuy xeexe waaye bu ngeen na ko Guinée bii Guinée bii nekk président de la République Ousmane sonk mii ne ci kaso bi te Macky ko mën a xeex la de waxuma Ousmane Sonko mais un Guinéen que je mu doon président de la République Moustapha Niass pièce de du dara dara dara Moustapha Niass dama ne bu ma doon nàmmulu samay ëllëg samay ëllëg nar a bàyyi mu yor mbaar du ma ko fa yóbbu Moustapha Niass dindi su dara ma xam ko li ma xam ci moom ba muy nekk PS xam ko bi muy génn PS xam ko bi muy ànd ak Abdou Diouf su ma leen ko waxoon suma ma ko waxoon Moustapha Niass si boppam ku ko ci seen wàccu jur ña dara bañ na ko doomi jur doomi jur taaw ab góor jigéen la ay ween la monté ak lépp ku mel noonu ngeen di ko dénk réew mi fu ngeen ko teg ba muy doon assemblée nationale président de l'Assemblée pourquoi pourquoi yow mënoo dresser sa waa kër yow sa doom ay ween la monte doon góor jigéen foofa tey ku fa bil ku fa yónnee benn benn bil jëmee ko ci mbiri góor jigéen yi dañ koy xotti dañ koy xotti tey mafia bu mel noonu yéen kilifa yi ngeen dugg ci te yéen a yéen a Ousmane Sonko li ngeen juboo ak gouvernement bi lii ak France dañ ko doon rey mais yéen da ngeen a ñaan ne buñ ko rey li ci des ñun daañu ko lijjanti bénéfice bi mooy Ousmane bañ a dee bi yéen d'accord ngeen mu bañ a doon président de la république ñu indi si ab yi d'accord ngeen ci loolu mais ñu dimbali Ousmane nag bañ koo rey Macky da ko téye ci kaso bi ba lay def li muy def lépp ba lépp noppi ba campagne yi yéex lépp mu koy génne ko ci biti moo tax xale yi war a jóg léegi bu ngeen jógul léegi Ousmane bu ma sa doon dara ci réew mi suba suba suba bu ngeen ko ma a jóg leen manifestation bi ngeen def bu leen bàyyi te màkki dawul bu leen bàyyi te màkki demut bu leen bàyyi mukk mukk te soldats yi jëluñu réew mi nouvel ordre mondial dama ne bu bu duggee bu ñu duggee ci loxoy nouvel ordre mondial torox nañ njëndum jàmm lii ko gën a bon est-ce que la colonisation lii ko gën a bon ki ay impérialiste lañu que pousse la pression nangu li nga yor di la duma te boo ko sonalee mu jël sa bakkan waaw loolu la les forces occultes bi ngeen di dégg bi ngeen di dégg c'est le nouvel ordre mais mais vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris et vous continuez vous continuez avec vous continuez di gëm seen sëriñ si nga xam ne ah dama ne xamuñu luñ añee waaw xaalis jigéen pouvoir luxe ak lan ndigal tëddal fii jógal fii toogal fii ponkal mu tal ne yow waaw ngay déglu sëñ bas mi sëñ bas kii àdduna bépp du ko kompaloo àdduna bépp xaalis la moom dem na ba ne damay rëcc li ma am ci alal damay rëcc sama kër yi rafet yi waaye Ousmane Sonko moom nañ ko denc ci kaso bi ba nouvel ordre mondial mën a toog Amadou Ba doon président de la république yéen Sénégalais bu ngeen ko nangoo du ngeen nit dama lii ku yaay ak taalibe ak fanatisme fanatisme boo concentré ci lii ma lay wax xam ne sëriñ si teguñu ko ci yoon da leen di tudd parce que ay politiciens lañ depuis que le Sénégal tubaab bi bu daan ñëw sëriñ si lay négocier Senghor sëriñ si la daan négocier Abdou sëriñ la daan négocier Wade sëriñ si la daan négocier mi sëriñ si la da leen a trouvé Macky dafa ñu trouvé leen moom di leen conditionné sëñ bas miy deeyaati deeyaati billaahi wallaahi ay koppar ak ak ak ak bànneexu ak nappaaju yooyu noonu loolu la ci lay ci la ne bànneex boobu lay yëg ci yaram wi ah dama ne jóg leen ngeen réglé réew mi xale yi génn leen te bu école ubbee bu école ubbee xale yi bu ngeen di dugg ci classe yi wooy leen sonko namm naa la waaw cinq minutes avant ngeen di dugg entre des classes na na cours bépp yu waxoondoo sonko namm naa la su ngeen génnee su ngeen génnee par groupe dina woy sonko namm naa la ba ngeen àgg seen kër waaw parce que waxee xale lu am solo la waaw xale yi jàpp leen loolu sonko namm naa la bu desee cinq minutes pour ngeen dugg ci classe bi bu ngeen di ngeen toog déglu jàng bu ngeen wàccee bay ñibbi dajaloo ci cours bi sonko namm naa la ca kaw cinq minutes après kenn ku nekk jël aw aw yoonam bu leen neex man ko ba seen i kër waaw kenn loru leen nag kenn loolu leen pour sëriñ si ñu ànd ak Macky Sall mii kompolo ak Moustapha Niass Moustapha Niass doon doomeeraam joo xam ne doomeraam joo xam ne Macky bëgg naa tànn pulub Guinée bii la bëgg a tànn pulub Guinée bii la bëgg a tànn mais xamul lu koy defee xamul lu koy defee moo ñu ko dóorante ak sëriñ si sëriñ si nangu sëriñ si amur ba lañu àndal kilifa yi amuru ba lañu àndal mbiri Sonko lañ bëgg a gas suul ñoom waaw te li fi nekk moo am da ko miim nag ngir le fanatisme sëriñ si dañ leen tudd leen tudd parce que ku politique ñu tudd la même buñ politiqueul te ay kilifa yi diine la no am problème sax war nañ leen a tudd moo tax imaam yi war a jóg xutba ci lii du dëgg du yoon Amadou Ba n'est pas un Sénégalais il n'a pas le droit pour doon président de la République Sénégal raison de sécurité moo tax ñu di ko wax te Amadou Ba bëggul Sénégal impôt yi nga xam ne français waroon ko fay di leen koo may waaw comme ci may un nga jox ko cent millions yu ñàkk fayda la def yi ni amul ba ah, kii tey yéen bu ngeen nangoo bu ngeen nangoo yéen taalibe yi ngeen nangoo ngeen nangu a ah, sëñ bi imposé leen Amadou Ba ngeen di ko nangu ba pare moo ñu ko naan Sonko muñal élection yi di bu soobee yàlla danaa la fay sa bor naa fay ban bor nga ni fay fay nu ko léegi boo nu ko amee de ah waaye daañu tëj Sonko ba élection yi jàll ñoom ñu ñaan pour ñu bàyyi ko lu ngeen di ñaanati bu ngeen nee ba liste yi tëj c'est pas la peine ngeen di ñaanal Sonko mu ñu di ko ba combine ngeen ba noppi xale yëpp xam ka ngeen di ba Sonko bu liste yi tëjee campagne bi commencé ba bëgg a jeex ngeen ubbi ko ne ko sëriñ diw moo la ñaanal bàyyi nañ la sëriñ bi woo ko di ko di taraay bopp bi naan ko muñee rek élection yi soo yàlla yaay suñ mbër fekk c'est trop tard français quatre ans lañ soxla waat Sénégal pour siiler siiler contrat yëpp quatre ans lañ soxla waat Sénégal pour tëj lépp signé lu ñu bor boo xam duñ ko mën a fay ci àdduna te duñ ko mën a duñ ko mën a dindi Sénégal day mujj doon un département français bu ngeen moyul noo bon dëkke wor mën a wor Sénégal foo ko fekk day wor ak fen ak jëw ak wax lu dëgg waaw sa Guinée la su ngeen ko bàyyee parce que France wax naa leen ko wax ngeen dama raciste France dafa bëgg polariser sous région bi waaw ne pour tubaab yi wax ak pël moo gën a yomb man lu wala lu bàyyi leen daa bañ pël pël koy bañ man sama maam sama maam pël lañ waaye tubaab bi dañ ne communiquer ci ak pël yi moo gën a yomb ndax boo tàmbalee pël ndi ko tàmbalee Niger di d'Ivoire ak foo dem da leen fa fekk bu ko defee ñoom mën nañu transmettre information et la communication moo tax tubaab bi viser për te xam ne nu mu leen di manipuler même fii à New York jutooñ naa fi ak ñoom Polar Speaking association boo xam ne ku déggul pël boo koo ci fu élection am da nga gis ñu groupe di nekk ci man ma ne ci élection yi jàmbur waaye bu ngeen mënee tax Ousmane Sonko du président de la république ruux ngeen siiru waaw Ousmane moom mën leen fexe fexe. ba doon président de la république Ousmane waxoon na ni yéen bu leen neexee danaa bokk ci askan wi danaa bokk ci élection yi yéen sénégalais yi bu leen neexee ma bokk ci élection yi Macky mënu ci dara yéen a ci man dara bu ngeen toogee seetaan ba Ousmane bokkul kon yéen a génn leen ngeen taal dëkk bi bu leen bàyyi dara taxaw lu fi tàkk am na lu ñu ko defaree. Berlin après la dernière guerre mondiale 1945 dara nekkatul woon ci euh, Cologne dara nekkatul woon Mannheim dara nekkatul woon Düsseldorf dëkk yu mag yi Francfort Heidelberg dëkk yëpp dafa tàkkoon ba jeex tàkk tey gis nga Allemagne boo fa demee te dëkk bépp ñu ngi ko développé ci mbayum pombiteer mbayum pombiteer ci lañ ko développé yéen ngeen am lépp waaw doon deuxième puissance ou troisième puissance mondiale ci zircon bokk ci les treize pays yi ëpp richesse ci àdduna Sénégal bokk ci Sénégal ëpp doole kowet ci alal ah français yi jabaroo ah, suñ sëriñ si doonoon ni jaam ay jàmm dañ daan bay tool yi gerte yu mag tubaab bi di ko ni lépp te ab doom duñ ko ci yeey kenn jóg wax jóg leen wax wax leen xale li fi nekk tubaab bi ci jabaroo ñu dëkk Ousmane Sonko ne ko man damay takk sama tubéy dootoo ma jabaroo nun dootoo nu jabaroo dañuy takk suñ tubéy la Ousmane Sonko wax waaw sëriñ si ànd tubaab yi ñuul yi ah ne dañuy dëngalu par force lu ñaaw a gi ni xool góor jigéen rek biiru góor jigéen xam xali benn xali genre war na ko mën a régler ci quatre-vingt-quinze pour cent des pour pourcentage bu mag yéen mën leen fexe ba dugal benn assemblée nationale déglu leen parce que ay député yi góor jigéen a fa nekk ah c'est la franc loolu rek la favoritisme bii ñu jox defal góor jigéen ñi du kenn ah du kenn suñ kilifa yi diine yi ñoo ko nangu ca référendum ba waxoon naa leen ko def nañ ci campagne bu mag activiste yëpp ci campagne wax ci sëriñ si dëgër bopp Ousmane Sonko taxaw wax ci ñëpp wax ci sëriñ si lànk ah combi nag Macky Sall ñu jël euh, enveloppe bi yóbbu ko assemblée nationale ñu xotti sànni te ba tey amul kenn ci ñoom koo man a régler ku mënta régler loolu ak majorité bi nga am quatre vingt pour cent man ngaa régler Ousmane Sonko Macky da leen a yepp maa ngi Macky nekkoon fii waaw Macky daa nox ma di ko dégg ay mbaam la teg sëriñ si tegu leen ay nit teg askan ay dof te ay dof lañu dooni dof moo tax mu jëli Guinée bi indi ko ne dama koy teg bu jëloon beneen pël sax bu jëloon beneen pël fi mbokki pëlam yooyu sax moo tane ko moo indi Guinée bi loolu pour wor waa Fuuta la day wor waa Fuuta day wax moom laa foog ne ay dof day wor mais mënoon naa indi beneen beneen beneen pël bu dul bii ah noo xam ne sa pël waaye dem ba Guinée importé ab pël indi. ah bëgg koo jox réew mi yéen Sénégal yi ngeen di ko nokk ak sëriñ si ah lii ma leen lu ma wér laa ci xam jabaram du sénégalais guinéen la baayam guinéen la seeni ndey jabar guinéen lañ waaw amu ci kenn ko xam ne Sénégal liñ ko juddoo Amadou Ba sax ab communauté sénégalais seen gàmmo ak jàng yu nëb yi du ci dem waaw amul soxla ci seen i màggali ci gàmmo amul ci soxla yéen kay yéenay dem këram di sangu ci piscine ba ka ñàkk xorom ah laahi ñoo ñàkk jom man la Seydina Ousmane Dramé bu la révélé